bis ni tey nag yéen mbooloo mi maa ngi leen di wax ni bépp activité Pastef man Cheikh Abdou Latif dakkal naa ko Cheikh Abdou Dieng lay wuyoo nekkat responsable la woon si Pastef ne bu fi parti bi amee dëgër lu waay si Touba loxo a nga ca dem sax ba cité ay nit jàpp na ne ñoom ñoo doxalul si biir parti bi dañ ko doon siis boole kook tamit amuñu vision ne moom moo yoroon cellule yi moo daan doxal moo yoroon vision politique bi tey jii bi mu teggee loxoom nekkat Pastef fii si Touba taxaw na si ay kàddoom moom ba tey dellu si nii li ko waral mooy ñi ko ngànk nag jamono jii de xamuñu fu ñuy taxaw ba tey si ay moom Cheikh Abdou fii si Touba doon amal ndaje ak ay militants ngir jox leen information élection. muy mbirum Pastef nga xam ni euh, dama caa bokkoon 2016 ak léegi defe naa ay at yu bari la Ousmane Sonko yàlla dogal na ni lu ma mas xew la ñëw na ci mais commune bi ni muy doxee moo normal looloo waral ma génn ci dakkal bépp yëngu-yëngu boo xam ni dañ ko doon am ci Pastef bis ni tey arrêté nañ ko mag ñi ma àndal ñëpp. bu loolu jàllee commune bii nga xam ni ak département bi euh, man maa fi nekkoon ak ku ñuy wax Cheikh coro te boolem bi ma dalee ànd ak ñoom ba tey xam nañu li may peese ci dëkk bi ba tax na bi ma leen dakkalee tuuti ab diggante boo xam ne am nañu problème ma dakkal dem bi gis nga leen daanaka dañuy topp marché yi di def ay massification amatuñ programme parce que li li waraloon programme bi ci man la nekk parce que maa yor maa yor euh, sanction yi maa yor yi fépp fu ñu daan dem man maa leen daan wax eh, ñu dem ko ba loolu amee ba tey nag gis nga leen mënatuñoo am benn programme benn programme amuñu ko lu topp ay marché eh, di di di dox rek léegi nag ma li ma li ma leen di woo mooy ñu ànd jàppale président de la république waaw jàppale jàppale président de la république nag. naka noonee nag moom defendre na bilan bu président Macky Sall waaye tamit ànd na lool mu ni ci deuxième quinquennat ci ay kàddoom. ndaxte moom bilan bi mu def ci réew mi ku xool gis ko ku làmb daj ndax ku ne xam na ni deuxième quinquennat bii ñu dënmal yéen lañ ci soxla te président de la république tamit lañ ci àndal muy loo xam ne buñ ci àggee président dina bokk te yéen jigéen ñi yéen lañ soxla ak góor ñi lu ngeen ci man président mi ngi leen tàllal loxo ngeen jàppalee ko ndax moom yéen la am bilan bii nag damay wax ni bu sumi woon dàllam bi yónni ko ci opposition yi mu dem politigal ko gañal ko réew mi ndax fépp jëfam a nga fa waaw bis ni ki tey nag yéen mbooloo mi maa ngi leen di wax ni bépp activité Pastef man Cheikh Abdou jenn Diène dakkal naa ko daje bi ndaw ya fa teewoon ñoom adhéré nañu si yoon wi mu jëm ngir jàppale président Macky Sall. boo ñu woowee ak foo ñu woo dañ lay wuyu si Sëñ Abdou mii ci loolu lay dox faalewul nawet faalewul noor muy taw muy muy muy naaj Sëñ Abdou boo geesoo gis ko te yaakaar naa ñun ku mel noonu lañu soxla si suñu gox bii koo xam ne heure boo geesoo gis ko soo amee mbégte gis ko soo amee naqar gis ko Sëñ Abdou mii lépp loo xamante si nii xewla nañ ko bu ñu geesoo gis ko bu dee dañu xewla naqar bu ñu geesoo moom lay njëkk a gis bu ñu xewla bànneex bu ñu geesoo moom lay njëkk a gis lépp loo xamante si nii jeunesse mi ngi nekk si koñ di ko soxla wala suñu mag yi nga xamante si nii muy suñu yaay yi de ak suñu baay yi nekk si koñ bi yaakaar naa lépp loo xamante si nii ñi ngi koy soxla si gox bi suñu Abdou mu ngi ciy taxaw mi ngi ciy def lépp lu mu mën moo xam euh, ci wàllum alal la ci dooleem ci xalaatam ak xam-xam ak lépp mi ngi koy jël di ko ànd ak waa koñ bi di di leen ci jàppale te yaakaar naa ñun amuñu fayam ñun ñi fi daje ñëpp nag. amuñu ci benn kii bu ñu weeru ku dul suñu abdou mii jigéen ñi kenn demul ñu des ñoom it joxe nañu bopp fas yéene ànd ak moom. xamal ne Cheikh Abdou rek moo ñu ñor bu ñu ñu ci kanamam bu ñu ginnaaw ñun xamuñu kenn gisuñu kenn Cheikh Abdou rek lañ gis ku mu àndal ànd nañu ak yow fu ne déete nee nañ déet ndax ñun moom lañ xool moom lañ teg défense moom lañ àndal it nag comme nañu fii la ñu ne foofu la. comme nañu du foofoot ñu ne du foofu ñun bëgguñu kenn ànduñoo kenn moom lañu ñu àndal. luyee sees yomb na waaye luyee nit jafe na buñ gisutoon ci moom lu ñu doy temps dafa jafe kenn du dagg sa ñëw di ànd ak moom xañ na lum ñu wan ak luñ gis ci moom lu ñu doy moo tax ñu ànd ak moom jenn te ci kàttanu yàlla ànd nañoo ak moom ànd bu sincère duñ ko wor duñu deltu ginnaaw duñu ànd yar fu mu jëm rek ñoo moom tubaar kàlla macha allah gis ngeen mbooloo ma fi teew. ay mbojo mbojo ànd teewu fi ay xale teewuñu fi ay mag yi jëmm fi teew kenn ku ci nekk am nga sa carte te laaw la cat macha allah kenn ku ne xam nga say droit la may kon nag ñun moom ñu ngi ci ginnaawam rek jenn Cheikh Abdou Diène bis ni tey daal la mu jël décision mooy campagnal waa benn bokk